situation bi ñu ñëpp ñoo ko gisandoo dafa am loo xam ne dañ koy teel wax mooy dañoo nekk situation boo xamante ni contexte bi ñu nekk mooy contexte coronavirus moom amul kenn kuy naataab ni feebar bi mi ngi te feebar bi lu existe la te ñun mbër yi dañ ko nangu bu baax a baax xam ne feebar bi existé la te feebar bi bu ñu mucc ji ñëpp xam ne ko dañuy takk suñu mag dañuy respecté distance yi dañuy utiliser les gels antiseptiques te loolu ñu ngi chaque jour loolu moom nattaawoon ko pour état bi mu xam ne ñun les lutteurs dañoo nangu ne feebar bi existé la te ñu ngi wax suñu nit bokk nañ ci ñun mbër yi ñu njëkk a defal ay match waxuma la balaa ñuy dajale ñun dajale di ànd ak Gris Bordeaux ak Matar Baldé ñu defal ay max bu ne mbër bu nekk def ci logo di ko jox sa fan si club yi loolu gis ngeen ko mu ngeen ko seede si te gis naa ko ay maxam Reug Reug noonu man noonu ëmb keneen Papa Sow ku nekk donc ñun xam nañ ni feebar bi lu existé mu ngi ci dëkk bi mais dafa am loo xamante ni dama ko yàgg a wax mbër yi ma ne benn instant lu ñu xañ tuuti mooy suñu adversité dañ ko commencé di ko boole si suñu intérêt collectif ñi ñuy toog fii ñëpp teewul bu lii jeexee rek bu avancé taxawee dañuy bëri dañuy xeex parce que loolu mooy suñu métier waaye nag bu ñu demee ba war a défendre suñu intérêt dañoo war a booloo bokk ndey ak bàyyi kon défendre suñu bu ñu buggee fii yëpp ku nekk da ngay ñibbi sa kër nga ñëw rek say entraînement ak say staff bu ñu waree bëree ñu bëree xeex parce que mooy suñu métier mais bu waree taxaw ñu défendre suñu yëpp ñu ñëpp dañoo war a teew gis nañ làmb ji ngir ngeen du mu demee mu tëjee yàgg na comme ni ma ko waxee 10 a ngi nii. bu ñu xoolee yéen presse yi ak ñeneen ak ñeneen yéen ñëpp ngi liggéey ñu ñoo liggéey ñu bëri ba pare nag ñu gore kenn dégguñu ñu ngi jàpp suñu ñàmbur kenn xamuñu ba xam suñu dépense manqué na kenn xamuñu ñu ngi jàpp suñu ñàmbur te dañoo dajale suñu fond fuy fond Covid bi ëmb mi nii mën na ma seet ñu ànd ak Gris Bordeaux ñu yóbbu ko ànd ak Matar Ba ñu yóbbu ko ministre de la santé jox fa somme bu bari te boobu ba léegi ñu ñëpp ay impacté lañ ku xam ne amul kenn ku gën a impacté ci Sénégal que yi jël benn avance di xaar 10 mois pour bëri mais dañoo am suñu fula suñu fàtte suñu personnalité toog jàpp suñu jàmbur loolu rek dafa war a tax lépp lu ñu war a def rek koy bàyyi mu ngaa bàyyi ku nekk mu bëri mu def lu métier mais nga gëstu làmb parce que mbër yi dañoo ànd ak góor ànd ak fula ak fayda jàpp seen jàmbur war a rafetlu la gis na situation bi nu mel mu toll nii mooy comme ni mu ko waxee rek ñu proposé ay protocole sanitaire parce que moom. moom lañuy ñaan te état bi mu ñuy teg te ñun mbër yëpp suñu métier la ñoom ñu ngi liggéey keneen mi ngi liggéey ñun na dañoo am fulla fayda boo xamante ni génn wu sànni ay xeer génn wul offense la état génn wul mars dañoo jàpp suñu ñaamul mais bu wax jotee bu gisee ma gën a organiser ji nee naa leen ku ne mën nga toog fu ne di wax mais lu am solo mooy ñu ñëpp dañuy toog ñu wax kàddu nekkul booñaa moo yor kàddu parce que booñaa moo gën a tuur ci gars yi toog mais dañoo war a wax ñu ñëpp pour gars yi dégguñu commencé wuñ kenn nag mais làmb ji fi mu toll nii ay proposition rek moo des mooy làmb ji ñu ubbi ko ñu ñu bëri loolu nag forcé wuñ ko mais état le président Macky Sall ñu koy remercier de passage parce que ñun duñ fàtte démb dañoo tabaxal arène nationale plus de 32 milliards investir ko pour def loolu lu ñu wax ne faalewul làmb waaye bëgg nañu beaucoup plus de état jox ñu ko. parce que ñun bëri élection yi ñu ngi fi président teg bu mu dem rek bu demee passé dina tur jaar ci tur Modou Lo Papa Sow keneen ak keneen bu ñëwee Pikine yeneen di Eumeu Sène Ama parce que loolu yëpp ci marketing am la bokk ci élection am la bokk mais ñu nag après bu yëpp jeexee da leen delloo lu ñu moom lu ñu moom mooy ñu ñaan ko ko mooy ay mbër lañu laa moom moo suñu métier waxuma la ñun ñuy toog fii parce que sant yàlla ñun ñuy toog fii yëpp ku ci xëy di nga am dépense mais dafa am suñuy rakk ak rakkaar yu nekk ci suuf yoo xamante ne ay mbëru 60 mille la ji ay mbëru 100 mille francs yooyu dafa metti ci ñoom trop te ñun ñii ñi waruñu nangu mu ñu mujjee puso bi mu réer si ñun kon suñu rakk yi dañuy jam donc ñun dañuy wax pour suñu bopp mais dañuy wax pour suñu ay rakk yu war a bëree te loolu moo jaarul ñoom ñëpp dañoo war a ibbi làmb ji ñu bëree ibbi làmb ji ñu bëree nag waxuñu ko parce que xam nañ feebar mi ngi fi mais ñu respecté ci change ci stade bi mun nañ def proposition boo xam te stade bi gis rek arène nationale nu mu yàññee siège bu ñu toog beneen siège bi ñu tëb ko beneen siège bi ñu toog ko organiser ko ñun bëri ay responsable la supporteeru làmb dañoo bëgg làmb te xam nañu làmb lu muy apporté te ñoom tamit ay responsable la noonu la demee noonu la demee te loolu am solo la ñu teg ay proposition daan ni ah ñu kat bëgg nañ leen ubbi làmb mais nii ngeen di def da ngeen di bëri ci wii koro wala da ngeen di bëri bëri boo xamante nii siège yi bu ñu ci toogee beneen dañ koy tëb seen i supporters ngeen wax ak ñoom ñu respecté wala mbër bu ne may na parce que nit tamit li nga xam ne mooy gañ pew ko ko xaaj téye ko bientôt un an dafa am na loo xamante ni foo ngeen bàyyi am na suñu rakk yu bari yoo xamante ni ñu wax ko ak ñu wax waa mbër yëpp a ngi nii am na suñu rakk yoo xam ne dañu dem ci géej gi te ay mbër lañu woon man bari na ci ñoo xamante ni bari na ñoo xamante ni suma ay frère ñoo xam ne ay rak dañ may woo mbër yoo kii ñu bari maa ngi ciy génne dañ leen gaanal lu jot yomb jaru yàkkam bi dëgg la affaire yi métti na mais nañ def nànk rek dina baax donc parce que loolu moo tax ñuy ci ndox mi waaw ñuy jaale képp koo xam ne ñàkk na bakkanam ci ndox ak képp ku njaboot bu ñàkk bakkanam ci ndox mi mais di leen wax ne situation làmb moo tax yooyu yëpp am làmb gaan bu ñu nekkee di bëre mbër yi di bëre Sénégal di bëgg làmb di neex doo dégg situation yooyu booy même bu amul dara sax dañuy dem dund laabu seraan ku beeg bu ñu paree dañuy que gis nañ benn Papa Sow bëggal na leen amuñu dara ba pare fi ñu doon boolee dem dindi fa seen stress ko après booy duñu xam fu ñu jëm quoi ñu bàyyi ci xel parce que yu bëri ñu ngi dee ci géej gi te loolu dafa metti ñu ngi marché bu laa bëgg état bi mu bàyyi ci xel mu xam ñu ñun mbër yëpp ñu ngi ne taxaw benn problème lañ def ñu ñëw ñu ñëwul parce que am na ñoo xam ñëwuñu si yoon bi léegi ñu ngi ma woo ne ma mbër mu naa ci lii laa nekk ku ci nekk kenn du ma limee sax damay jóg daal may maa ngi de tout pour ak yéen donc nag ñu bokk nday bokk baay gis nañ mbër yu ndaw yi sotti yi ñu def bari naa gis ko mbër yu ndaw yi dafay sotti ne non suñu grand yi buñ seetaan suñu grand yi ñu ngi leen dégguñu mais loolu dëgg la mais nag ma wax leen ma laa seen appel neen seen grand yi mosuñu des ginnaaw parce que xeex bi ñu ñoo ko bokk waa état bi nag day wax ne Modou forcé wuñ waaw xëccuñu loxo kenn weñuñu kenn génnuñu taal bu defuñu dara te nag mbëri li war a bàyyi xel la nag te buñ neexoon ñu xool suñu population ñu def loolu parce que ku ci nekk fii milliers de personnes mi ngi sa ginnaaw kenn ku toog ku ne rek milliers de personnes mi ngi sa ginnaaw buñ génnoon yëngal day demee neneen mais duñ def loolu parce que ay responsable lañ mais lu ñuy def mooy dañuy toog wax ak état bi ñaan ne ko nag par rapport ak Bira Sène mi nga xam te ni mooy président du CNG di ko nuyu de passage mu wut ay protocole sanitaire déposé ko au niveau de l' ñu xool nu mbër yi bëree di defal leen affaire yi gars yi respecté seen max nga leen bër bu nekkal au moins di nga dugal tant de personnes gars yi bëree parce que affaire yi dafa metti loolu laa amoon lu may wax di ko wax état bi ku ci nekk ci toog fii ñëpp mënuñoo jël parole mais am na yoo ne ay tët yoo xamante ne sama kàddu nu mu amee solo ñoom la amee solo buñ paree ku nekk dina la jox nga sànni sa kàddu mais di leen di wax ne rek man boo ñëwaat maa ngi wax état bi ñun mbër yëpp ñu ngi dajaloo xeexuñu xuloowuñu nag. sa am ñu pour def ñu dara mais li ñu bëgg mooy suñu métier bi ñu am muy làmb ñu ibbil ñu ko ñu bëre tout en respectant les mesures barrières ñu xoolal ne solution bu ñu bëree ñu bëre parce que ñu gore lañ booba yóbbu kenn dégguñu ñu ngi toog si ab suñu ñàmbur suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm kenn xamu ko te Covid 19 bi boo ma amee nii gis nga nu mu demee dañoo dajale suñu dërëm boobu amuñu sax avance mais dañoo dajale lu ñu am yóbbu jàppale population bi te population bi merci soti euh, population bi fu mu nekk situation bi ñu nekk ñu ñëw gën a xam ñu mu bëri parce que mbooloo mooy topp suñu ginnaaw Papa Sow wala Boña wala góoru sax day dundal këram mais day dundal yeneen kër parce que yàlla moo ñu tuddee moo ñu moo ñu dégg loolu kon xam nañ situation bi damay gis nag état bi parfois mu dimbali mu dimbali les personnes culturelles mu jox leen ay mais làmb lu ma ñu boole ko pourtant làmb culture la mun a wax culture génn ci làmb ñu culture boo ko génnee suñu métier rek amatul solo li ñuy def kon leneen lay doon te leneen loolu MMA ñu koy def ñeneen ñu koy def mais ñun boo gisee ñu xam sport boo xam ne ñoo ko moom muy sport de chez moom ko muy ñoo xam ne bokkuñu ko kenn parce que dafa am culture parce que gars yi dañuy takk gàllaaj yi gars yi dañuy yor ñàkk yi toj ko gars yi dañuy tuus gars yi dañuy ay cent bi parce que loolu moo tax gars yi bëgg ko ëmb day wàcc ci tànk yi day njuug commencé noonu da koy yëngal dëgg la kon kon loolu ñu ne culture mënoo wax culture Sénégal te génn ci làmb donc bu ñu def ay subvention di ko def homme culture yi dina ko jox dañ ci war a boole làmb laaj ñu dara nag ñu ngi sant yàlla la loolu laa amoon mooy sant